دام يا حبيب يا حبيب رمضان مؤمبلين مغنجوين يو نغا مدل جولي جرو يعتلن سخون ساكو يرماندي ngela waay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci yàlla la mën ci lu baax pour ci tay safar yëgulee yow loo yër loo yër li yaay waaw waay a waay man damaa xam wax ma ko yër laa la sama yu may la ilaha illallah amintu waay waay xam waay waay yow kii jeexal na la bu yàgg nekk daal su ñëw de dikki loolu tudd su ñëw yow la ilaha illallah ni yaay li li yaa di fanaan yaay taxaw damaa bëgg nga laaj ma bu yàgg ci ay bët nga naan ma gën waay waay demal nii dafa ki sañu loolu laa yaakaar. mooy yow jërëjëf ah yow man lii neex na de li ma gis bi barke yàlla dafa neex. aywa waay waay ñëwal nii waay. waay waay waay demal. may ma. jëlal lépp jëlal lépp jëlal lépp. dina génn kër gi mbaa ma génn. waay ma nekkal dof yow li lan la. mooy dem moom mooy dem. billahi mooy dem. yow xaw ma lu ma la war a wax waay waay ki nga war a dóor kay ngi nii. billahi mi yaay xam nga defoo. dof dina xam ay awra nga xam fii li li li. barke yàlla li daan neex laa la wax. yow mii ku la jox awra nga wér de lii mooy lan leen nag naa la xamal bis ni ki tey boo faraan damay faraan barke yàlla wala ma noq la. ay waay. barke yàlla boo faraan damay faraan wala ma noq la lii dafa noq neex barke yàlla dafa da ngay taxaw kay. lii dafa neex ni jaay. waaw waaw dafa neex ma noq la. waaw waaw nga noq ma waaw. noq la neex waaw waaw. waay lii di nga faral waaw di nga faral wala man ndox ma waaw may bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dalul ci yàlla lu ci lu baax ci tay mengook safaan ba nanga ko baay pour yow soo duggee si ruus yi yàq fi li fi yàq nga bàyyi ko noonu rës sotti ndox boo si sotti ndox bu mel ne xale dina la ju nii yow yow li nga mel baaxul waaye yow. xool xoolal kii moom añ fi mu ko bàyyi xool xoolal ñëpp ñëpp añal bi yàgg kër gi kër gi moo fan démocratie kër gi amul démocratie amul ay règlement intérieur xool xool ko ful añ bi laa war a def sax nit ñi feetu benn dangay dangay dangay dangay noppi de. loolu def nga ni. waaye waaw waxal waxal. moom man damaa damaa xiif damaa xiif de. añ añ bi añ bi boobu ba léegi kenn kenn kenn ñëpp añ nañ fi yàgg moom maa ngi nii ndekkiwu ma sax damaa xiif bay bëgg a dee loolu dafa bëggoon kaa sóolal sama sama loolu loolu la de. Eh, eh, maa la gën a xiif fop lii ndox la du añ maa la gën a xiif fop te yow da yow da ngaa mën a fen su ma ñamoon doo ko wax sa nijaay sa kii sa yumbaay lan su ma si ñamoon. waaye nañ ko sol kay ñun ñaa ñëpp ñu añ man damaa xiif yow yow yow yow premier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

Ramadan mu ëmb leen gën ci weer yow na nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tubal jéglul dellu ci yàlla lu mën ci lu baax bul ci tay mengoog safaan ba nanga ko baay worthy.